Ah, mbokki internetu DBC Media, ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey nag ñu nekk fii ci marché Grand Yoff nar a waxtaanee lii Alioune wax ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko du mën a ci élection présidentielle 2024 yi ndax waa direction générale des des élections dañ koo xañ fichier parrainage bi naka noonu nag ñu ñëw ci population sénégalaise bi pour ñu wax ñu nan la ñu gisee loolu Alioune wax ci direction générale des élections ah Ousmane Tine mag la mu magum jëm moom bu taxawee si di wax xanaa lu muy wax leer na ko jàpp naa lu mu wax daal mooy yoon song def war a bokk waaw lee nee na ñooñu waruñu ko jugé maanaam ñu war a wax loolu ñoom waxuñu ko moom teg na ko fu leer maanaam moom daal xamal na ne ba léegi ko Sonko weesoogul pour mu bokk an naa seeg moom. waaw Alioune Tine kàddu mi li mu wax vraiment ñun ànd nañ ndax sénégalais bu nekk danga am droit boo am ci réew mi sa droit dañ la ko war a jox ba mat sëkk war nañ la koo xëñ Ousmane Sonko amul lenn loo xam ne war na ko mën a tere bokk ci candidat élection 2024 yi ndax Ousmane Sonko citoyen la sénégalais la juddoo fi la yaroo fi la defee léppam dëkkul beneen réew Sénégal la dëkk xëñ yi ñu koy xëñ ci réew mi ay droit du dëgg du yoon dañ ko war a bàyyi nit ki nag su la ñëpp joxee bopp dañ ko war a ànd ak moom si jox bopp gi ñu ko jox bopp mais benn nit mënut fi nekk bëgg a def ci réew mi lu ko neex ñi bàyyi ko ci muy def li ko neex loolu du dëgg du yoon man li Alioune Tine wax d'accord man ànd naa ci dañ ko war a bàyyi mu def ay duraam bokk élection ñu jox ko piis naa am mu def liggéeyam dem réew lu ko yàlla may ñu xam ne la bu gañee dem bu gañee wutit ñu xam ne ka gañee jël dem yoonam mais waruñu xeeñ kenn duraam waaw lu man loolu laa gis moom songo mom amul désité lé amul désité lénen dafa warul bokku rek ci élection bi moom warul bokku tay warul bokku suba parce que moom actuellement ni dëkk bi mom tranquille da ngay ligay nice amul benn bruit Yakal nañu lu bari chaque jour di woote li ñew leen di def lé ak lénen actuellement ni mom même connexion bi tranquille dafa neex nice warul bokku ah. waaw kaddu Alioune dama ko rafetlu c'est parce que mag bu nekkee ci réew day dama ko rafetlu bu baakha a baax ndax alinti nekkew ci réew mi lu dul defar waaye moment bi ñu tolu defar dafa jefe da ngay defar ñi jàppee la benen camp pour cadreu da nga farak sonku te fekk ne alinti Tine mi rek moko ñor réew mi rek moko itel ñi rafetlu ay bu baax. jamono ji ñi tolu nak election sénégal de election ñom dañu taxaw nenañ Ousmane Sonko du bok ci election yi radio nañ ko ci fiché bi du ñom ñoko wara wax dernier moment conseil constitutionnel ñoko wara wax janguma droit de ci bir jankati droit yi la jangé ci bir luñ top sonko diko buntu xatal diko final luñu top sonko diko buntu xatal diko final ci la jangé ci sen bir ndax limay top sen youtube di len xol ak limay top borom xam xam yi cadre yi tok di wax deug waxuma ñi tok di topalé de da koy topé comme fait di ber rek mais comme nak dankati droit yi nga xamné ñu ngi ci dëkk bi nek di waxal yalla té nek di waxal deug ñoñu ma ngi len di top moo si ñooñu laa jëlee droit tuuti mosuma toog bande école déggoo léegi ma naan la direction générale de élection nu mu tudd moo tax ma ne mosuma toog bande école mais topp Ousmane Sonko di ko buntu xataal pour bu mu bokk ci élection yi dogalu yàlla suñu borom la ñoom yàlla la ñuy bëreet Ousmane Sonko 2016 la ñu ko raje est-ce que ba léegi am nañ ci ndam 2016 la ñu raje Ousmane Sonko ba léegi amuñu ndam. te yàlla sunu borom bu nammee dara ci jàmm day xotti xolu jàmm ñu dugal leen ci moom Ousmane ko waxal nañu ko sax nee na yàlla bu nammee dara ci jàmm day xotti xolu jàmm ñu dugal leen ci ñun Ousmane la ñuy topp man laa wax de man nëbbuma sama bopp Ousmane lay topp Ousmane pala A usmaan palaa B lijjantiwu ma kenn ci àdduna ci kaw suuf ma yëkkati sama carte d'identité bii di la ko jox Ousmane laa koy jox su ma amul Ousmane jébbal sama bopp yoon su ma amul Ousmane. jébbal sama bopp yoon waxin la déggin la laaj. ah si lu mag yi wax rek comme Ousmane bi kenn waxagum la ñun sénégalais tamit ñenn ñu bari na gis nañ ne moom luñ ko jàppee du yoon maanaam nañ ko offensé jàpp ko loolu yëpp du benn dëgg waaw man ah jàpp naa ne daal war na see mën a bokk waaw. parce que nit balaa ngay doon président da ngay teey te xamante ni ànd ak liggéey kuy wax du liggéey. da war a noppi nga job sa job mais chaque jour di avant loolu da doon génn rek ñëw leen ñu def bruit ñëw leen ñu xeer ñun du ñu liggéey parce que moom bu génn rek ñun du ñu liggéey daal chaque jour ay xeer ay def la lii te dañoo jooy depuis Kolda ñëw fii di daan doole bëgg ñu xamante ne ku ñuy taaral kuy liggéey kuy liggéey la ñu bëgg quoi mais Sonko du liggéeykat président TikTok mooy Sonko. moo tax ma ne la su ma amul Ousmane jébbal sama bopp yoon Ousmane Sonko pala A nëbbuñu ko làquñu ko Ousmane la ñuy topp Ousmane rajo nañ ko nag da nga koy jox fichier bi mu signé radiation bi door a baax mais fichier bi ngay jël di wër borom naan ko ana fu mu nekk amul fen mënoo wër nit ki te xam fi mu nekk. yaa ko tëj fële sa kose bu siba xutaan seen toppalekat yi jog di ko layal naan Ousmane Sonko rajo nañ ko du tut bokk ci élection yeeg xamuñu toggub yàlla suñu borom toggub yàlla bu sottee force ñu lekk ko. toggub yàlla bu sottee force ñu lekk ko nag dam cadré wu ko ne Ousmane Sonko yàlla yàlla yàlla moom la àndal déedéet mais nu ñu gisee suñuy bët yàlla moom la àndal ci lii ak liy xew ndax ana dossier Mame Mbaye Niang lu ci Ousmane Sonko dajul daj na ci lu ne ana dossier ba ana dossier Adji bi Sarr tappalekat boobu fenkat boobu lan la wax bi mu taxawee dans le tribunal amuñu viol amuñu menace de mort waaye am nañu corruption de la jeunesse ba ma juddoo ba léegi maa ngi koy door a dégg ñu koy àtte ci Ousmane sonk yàgguma ci jamono nag mais maa ngi door a dégg ñuy àtte ku ñuy ku ñuy ñu ne corruption de la jeunesse lañ koy toppee mooy kan kuy jaay ay xale jigéen nañ ñu wan kenn ku ñu Ousmane Sonko mos a jaay aj Sarr jànguma droit ci ñoom laa jàngee droit xaw ma dara mosuma toog ban de école buñ jàppee nag population bi yeewuñ nax nañ seen bopp. waaw conseil amul loo xam ne nii war nañ koo jël ba tax ñi mën a gën man gëwuma conséquence ndax xam nga lan laa gëm dama gëm dafa am ku nekk seen njiit muy Macky Sall taxaw di leen appliqué ñooñu appliqué ñu benn loi Macky Sall mooy appliqué ak ministère am Antoine Diome naan leen def leen lii ñuy def ñoom amuñ seen benn décision bu ñu jëlal seen bopp di ko def ci réew mi ay président ak ministère am jël seen décision di ko def ci li leen neex ci maa tey loolu dafa war a jeex ci réew mi loolu kilifa yi ñoo ci war a jot taxaw lii du dëgguru yoon loolu moom man loolu loolu laa ci gis amul leneen conseil constitutionnel amul seen benn décision boo xam ne war nañu mën a xëy Ousmane Sonko élection pour man li ma gis man personnellement man loolu man la intéresse loolu du dëggu yoon li ñu ko def teguñ ko fenn. man damay voté kay boobu ba léegi maa ngi voté bu bokkoon moom laay voté waaw Macky Sall yàgg nañ ko voté mais moom bokkatul boo woote woon sax ne moom daa bëgg a bokk ñu woo Sonko ñoom ñaar ñëpp ñu ne ko waa bokkaatal troisième mandat loolu sans problème. mais carrément man Sonko laay voté. ay wax yu muy wax ay chaque jour gën leen ngeen xeer gën ngeen def lii waaw ay li kenn xamul moom moom daal man dama ko bëggul daal foofu la gën a gàtt bëgguma muy bokk fenn du si élection du si fen na nekk foofu rek fu mu nekk foofu waaw. waaw nekk fële ci raw ma rëbës foofu noonu dafa baasi moom. ah Ousmane Palabé mënuñ ci dara yàlla moo ko togg yàlla mi ko togg nag. nañ ko bàyyee dogalu suñu borom bi te ñoom xam ne dañoo fee toogoon nguuru Ablaye Wade Ablaye Wade di leen buntu xataan ñu ñëw dooleel leen ñu ñëw bëgg ñee jaay doole nag kon duñ ko nangu nañ ko bañee woon ca nguuru Ablaye Wade noonu lañ koy bañee waatee giri boobu ñu taxawoon ca assemblée ba Mame Mbaye Niang taxaw ca giri ba téye ci lang Mame Mbaye Niang ngi koy fàttali bi muy taxaw ci giri ba di lang sama pegg la woon moom Mame Mbaye bi muy taxaw ci giri ba téye ca barrage ba di lang man la woon ak ndem ci yàlla alaaji Sidi Lamine Niass laa toppoon maa ngi koy fàttali loolu ba mu koy ba mu koy def jaay doole taxoon mu ko doon def jaay doole gi ñu tollaati tim nañ xam ne la fay nekkoon démb mu ngi fi ba tey ndaw yi fi nekkoon démb ñu ngi fi ba tey li juddi woon démb génération bu ko ëpp doole te ëpp ko matir gën ko ëpp xel moo fi nekk tey Macky Sall nag xoolaat boppam dem ci demin bu rafet su demul ci demin bu rafet ah bu demee ci dem bu ñaaw moo ko yóbbee boppam Ousmane Sonko sunu pala A sunu pala B waxaat naa ko ba mu de ñetti yoon. mbokk internet yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm loolu lañ leen andiloon tey ñëwoon tey fii ci. marché Grand Yoff bu dakaar ci li Alioune waxoon ñoo ko déggandoo ñii nee nañ li mu wax correct na ñii ne li mu wax duñ si dem ñii ne nañ ne Sonko bokk ñii ne Sonko du bokk loolu nag du suñuy kàddu population sénégalaise bi ñoo ko wax ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax continue leen di abonné ci suñu chaîne DBC ñu maa ngi gërëm bu baax sama caméraman ak sama monteur di Ami Thiam jërëjëf ba beneen yoon ci beneen sujet incha allah.